jërë ngeen jëf euh, sinu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di siyaare di leen di jaajafal bu baax amaat kontaan ak mbégte bu baax a baax ni ma ko faral di def ak sëriñ sépp nag tey dama fa yéene ñëw dalal benn sëriñ di gan di première émission ak moom ci site bi di 221 people ñu koy tudde sëriñ daam Seck ñu koy dàkkantale list listixaar borom xaar bu mag bi ñu war a waxtaane ci lépp loo xam ne jëm na ci xam-xam ñu dëxëña ko ci ñaan ndax euh, saa su nekk rek jaamu yàlla yi ñu ngi koy seet si am loo xam ne bëgg nañ ko moom nag euh, ci gàttal ni ma ko mën a waxee deew day ñaan mais bëggatu bëggatu fës ci média du sañoon dina xel di jëflanteeg jaamu yàlla yi te du fës sëñ daam dañuy bàyyi nga nuyoog mbokk internet bi. auzu billaahi bismillaahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam kam ni ko borom bi subhaanahu wa taala di defe hmm. moom ak i malayka ñi ngi ñaanal bu baax a baax sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te wér ndax ñun mooy suñu nday mooy suñu baay xamuñu kenn ku dun moom ginnaaw loolu ñuy ñaanal bu baax a baax xalifa seneral du Tijaan yi sëriñ Babacar Si Mansour ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax. mu mm. yàgg te loolu te wér. amiin di rafetlu bu baax ànd bi ak Serigne Mountakha. di rafetlu bu baax tamit réew mi ni muy doxee. ñu ngi rafetlu bu baax a baax réew mi ni muy doxee yërmande ji bu nee Sénégal rek dañ naan kon moo tax ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax. Mhm. ñu ngi daal jàmm di gën a am ci Sénégal incha allahu rabbi. tarkala tarkala euh, Serigne euh, euh, bu mag bi nga xam ne ku ràññeeku la ku la xam nag xam na la ci ñaan mais ràññeeku ci média ndax bëggoo ci dox bëggoo ci yëngatu tey nag fi may tàmbalee mu di màggal gi nga xam ne dëgmal na ko dañ koo dëgmal fi mu ne nii di bii di ñëw ñun ñëpp ku ne ci war ko mën rek nga dem ci ni ko Serigne di waxee mm. xeebu ci kenn mm. ku ko mën a sant rek santale ko. Mm-hmm. ana lan ngay àddu ci màggal gi jëm ci loo ci waxtaane euh, màggal gi li ma ci li ma ci njëkk a wax moo di. Mm-hmm. Moride ñu gën a bàyyiwaat xel bu baax kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba. doon naa ci waxtaan ak benn mag bu yàggul dara ma ne ko li tax murid yi di di faral di beew ak di yëkkatiku li ko waral moo di seenu mbër dafa def lu kenn defut loolu rek moo tax loo fi gis rek daa am lu tax. Mhm. léegi nag loolee tax Cheikh Ahmadou Bamba ñu bëree bëri teg ko nit te fekk du nit li tax du nit dinaa ko wax. ndax man lu ma wax lu ne dafa am fu muy tegee. Mhm. waaw man lu ma wax rek dafa am fu muy tegee. yow la ñëpp di déglu nag ci site bi di cent vingt et un people. waaw euh, borom bi subhanahu wa taala dafa yabal malaayikal mawti mhm. na ko demal nga rocci juróog Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam. bi malaaka mi ñëwee ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mhm. yàlla yàlla gën di ko fay bi malaaka mi ne tëll bu njëkk bi hmm. dafa tase ak doomu maam Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam soxna Faatimata hmm. mu tiit na ko may ma ndox bi mu tiitee na ko may ma ndox mu ne soxna Faatimata maam ne ko tëluñu ay ndox ku tedd ki yaakaar yi nit ñi kooku moo tawat malaaka mi dawaat beneen yoon mu duggaat xuusaat bi mu xuusee nag fekk sayduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu tëdd ci lalu sukuraat mu daal di rëppeelu ba egg suuf na ko borom bi subhaanahu wa taala moo ma yónni roogi mhm. bi ko waxee loolu maam sayduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di ne ñokket jóg toog bi mu toogee daal di tuur ay xéewal bi mu tuuree ay xéewal malaaka mi dafa tiit dawaat ci borom bi subhaanahu wa taala na ko man de damaa egg wax loolu maam sayduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu tuur ay xéewal yàlla na ko dawaatal wax ko bu fekkee jale gi ma ko fi jale da koo neexut na ma ko wax bis na tey ma dakkal dee du am bi malaaka mi ñëwaatee xuusaa mhm. duggaat toog ne ko sa borom nee na jërul ngay tuur ay xeewal bu fekkee ne jale gi mi la fiy jëlee da laa neexut loo wax rek noonu la loo wax noonu la mhm. bu la neexee nga ne dee du am mhm. waaye Seydina Ahmed alayhi salaatu salaam ci ci ci mbaax gi ak ci nangu gi mu moom tamit jaamu bi yàlla la ne ko aha kullu nafsin saa yu xatul mawti mhm. bakkan bu mos dund dafay mos dee mhm. kon damay yàq nguram li taxoon may tuur ay xéewal jooy li tax mu doon jooy nee na dafa xam ne bu fi jógee xeetam bi dana danan sànku danan réer toroxtaange ak tuskare daf ne dana leen ñeel mhm. looloo ko taxoon muy jooy malaaki mi dewaat ci borom bi subhaanahu wa bi mu ñëwaatee borom bi na ko loolu bu ci tiit bu mu ci ragal danaa tibb ci leeram tibb ci sama leer yee ko xool jigéen ñi ku ma ci gën a doy ma jaarale ko ci. Mhm. mu yor jëmmi doomu aadama meeru doomu aadama. kooku tey mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. Mhm. loolu moo tax nit ñi ma bëgg leen a xamal kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Bassirou. Mhm. baayu Serigne Mountakha Bachir nee na. Serigne Touba léeg-léeg dafay amee aal boo xamante ni boo ko jegee dënn bi day riir ak arxuraan da ngay sori léeg-léeg ñu am ñetti fan yoo xam ne duñ ko mën a jege ndax dënn bi ni muy riiree arxuraan. loolu moo waral Cheikh Ahmadou Bamba du nit. loo keree keree rek mu yàq loo man di def mu yàq bi tubaab yi bi tubaab yi bi tubaab yi doon def seeni mbir tamit noonu la demee lu ñu def rek sëriñ bi yàq lu ñu def rek dara lépp lépp échec ba dañoo mujj jaaxle. Hmm. xam nga dañoo mujj ñoo yóbbu woon ñoo mujj waat andiwaat. Hmm. kon kay xam ne ki ñu yóbbu du nit. parce que nit ñu yóbbuwoon ñëwaatuñu. loolu moo waral na Cheikh Ahmadou Bamba du nit léegi nag ñàkk nit googu mu ñàkk doon nit mag ñu bari xamoon nañ ko. ñu yéeme woon ci alxuraan nekk ay ñoo mujji ñëw fekk ci Cheikh baam ba fii ci njaareem sukku rëppeelu te daawut defee baatin Sëriñ Tuubaa ñi ko xamoon dëgg-dëgg. Mm. daana wax jaamu ji leen yàlla rek. waaye baatin bii nii daanaka daf koo nëbboon moom la jox Cheikh Mouhamadou Fadal moo waral Cheikh Mouhamadou Fadal amee maqaama xutbul aqtaab xutbul aqtaab comme jamonoonteel day man ci jamonoom loo xam ne doo ko man mm-hmm. moom la jolee ci baayam loolu moo waral ñum jamonoonteel ñëpp dañoo mujj bàyyi xel Cheikh Mom mhm. Cheikh Mamadou mhm. moo doon woon xutbul aqtaab bi xutbul aqtaab ku mu jamonoonteel day man ci jamonoom loo xam ne doo ko man mhm. mooy waral bu nee na taw mu taw bu ne du taw du taw comme ne dangay ngay faatu nga faatu loolu la Cheikh Mouhamadou Fadal jëlee ci baayam waaye tëbu tëb tamit jël ko dafa am fu jaar moom tamit Cheikh Amadou Bamba dafay am fooy jaar mu soog laa jox mbir dangay jaayante liggéey Mm-hmm. jumaay Tuubaa ji seen ngeen liggéey bu rëy bi mu ci liggéey mm-hmm. moo waral mu yuqi sooral bi yuqi gi mu yuqi sooral bi dafa gaaw Cheikh Omar Fall dafa gaaw mm-hmm. looloo tax mu yuqi sooral bi bi mu ko yuqee ba ca ko tuddee ko waat Cheikh Ibrahima Fall ku bëgg raw ci àdduna da ngay da ngay safoo Cheikh Ibra fi ku bëgg ci àdduna rek safool Cheikh Ibra lii man maa la ko wax fu waaye tabee te bëgg a rëcc safool Cheikh Ibra Fall te dëggal da ngay raw sang maas moo tax Cheikh Ibrahima Fall moom tamit mënuñoo waxtaan ci Serigne Touba te ko laal Euh, Cheikh Ibrahima Fall moom ñaari mbir la am ndaxte dafa doon doomu soxna beneen bi topp fi nit ñi àgg fépp ci yàlla mu àgg fa mhm. àgg gam fa àgg tërëwul mu jaayantewaat dëxañaat lépp kenn laat Serigne Touba radiyallahu taala anhu ba nit ñi tey mën a jariñu si Serigne Touba bu doon Cheikh Ibrahima dañu romb Serigne Touba te Cheikh Ibrahima Fall ku àgg la ca boromam li ma la wax ni lu lu ma xam la man. moo ko feeñal daal. lu ma xam la lu ma wax nii lu ma xam la. ku àgg la ca boromam. bu ko mm-hmm. neexoon ber yoonam am doole kam ni ni nit ñi bere seen i kii. daadi di kennal maam Seydina Ahmed alayhi salaatu salaam daa di am ndam. waaye dafa jaayantabaat loolu kennal Serigne baa kon mu nekk koo xamante ni mbiram jar na moytu ku bëgg a rëcc ku ne ci àdduna nanga nga moytu mbiru Cheikh Ibrahima Fall. ku bëgg ndam ku bëgg ndam tamit. Mm-hmm. na ngay safoo Cheikh Ibrahima Fall. lan nga mën a jàngale ci màggal gi teg ci. waaw màggal gi moom li nga xam ne moom lan ci mm-hmm. eh, moo de bi ci jiitu mooy mm-hmm. ñu gën a yokk pas-pas bi parce que fii mu ne moom ku amul pas-pas sax mën nañoo wax ne doo màggal ndax da ngay ragal ndax yëf yi xew ci àdduna mm-hmm. waaye pas-pas bu nee mural rek dañ ne pas-pas pas-pas bi moom moo ci jiitu moom mooy ngëm-ngëm bi am pas-pas bi la nga doon def daaw nga def lu ko raw ren loolu mooy pas-pas moo ci jiitu moom ba noppi. Mhm. beneen bi ci topp nag gan ñi nga xam ne ganu Cheikh Ahmadou Bamba lan ñu fonk leen bu baax a baax a baax lu nit man ci teral leen nga teral leen. màggalu Tuubaa dafa war a jeex sax murit bi ne man de xaalis bi ma yoroon xamu fu ma ko def loolu mooy yëfu murit. Mhm. waroo ci dara na lépp jeex ngir Cheikh Ahmadou Bamba. buy dellu siwaatee da nga yéemu bu màggal gi dellu siwaatee da nga yéemu am du nay. Mhm. am murit du nay. mag ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu seeni sët lun masaan yor dañ koy jox Serigne Touba lun masaan yor jox ko Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul boole koog nag di jooy xam loolu lu ko gën a yéeme. kon moo tax bi ci jiitu mooy. Mhm. ñu yokk pas-pas bi bu baax a baax a baax. yokkaat ngëm-ngëm bi. Mhm. gën a xamaat kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax moom kat. Mhm. loolu ma ci wax moo ci am. dafa melow melow nit waaye du nit du nit de. lan kon maanaam lan la doon daal. Euh, fi ko mën a suñu borom la mag ñi danaa jaaxle foofu ci njaareem na ko nit nga wala loo doon wala yàlla nga wala loo doon mu ne leen yet leen ma soow ndox ñu yet ko ko mu jaxase ne leen tàqale leen duñ ko mën a tàqale mu ne leen voilà noonu laa mel ci maam Seydina Ahmed alayhi salaatu salaam noonu laa mel ci borom subhaanahu wa taala damaa see ci ñoom moom coobare suñu borom rek la noonu rek laa ko mën a wax moom tamit loolu la daa wax sax mu jigi bu mag ñi sonnee mhm. na ko loo doon mu ne leen coobare sama borom ndax léeg-léeg li ma la moo ci am yàlla ko tamit ci alxuraan lu mu defalut kenn xoolal lim bind mhm. xoolal lim bind ñi ñi jàng ba ar arro ñoo ñoo xam Cheikh Amadou Bamba fi mu ne ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon wi xamagun kan mooy Cheikh Amadou Bamba ñi jàng ba ne ar ñoo ñoo xam kan mooy ma Amadou Bamba noonu la demee moo tax ay taalibe intellectuel Cheikh Amadou Bamba mook fépp la murid lay doon tarkal koo fi gis murid lay doon. Mhm. jërëjëf mu mel ni sax duñ desoon ci émission bi ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul waxtaan bi sax neex na mais duñ ci desoon rek doy na sëkk mais dama naan balaa ñoo jàll rek euh, ci beneen ponk ndax mënoon na ñoo des ci émission bi lan nga ci dolliwaat ñu jàll ci beneen ponk pour tëj. li may dolliwaat ci ba tey ci Cheikh Ahmadou Bamba. Mhm. moo di euh, pas-pas bi bu jàllee ñu gën a yeesluwaat suñu diggante ak Serigne Touba ndax fii mu ne ku fi bëgg a raw ci àdduna. ku bëgg rëcc wa ilaa nga bëgg a def mission wala nga bëgg a àgg fenn ci borom bi mhm. faaw nga doy loo loolu moom maa ko wax te lu ma ciy fekk na ma ci fekk koo xam ne bëgg ngaa rëcc ci àdduna baa bëgg nga am ab cër dara ca yàlla faaw nga doy loo Cheikh Ahmadou Bamba maanaam topp ci ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba nag gisoo ko waaye ak njabootam ñu ngi fi mate ko sëkk faaw nga ñëw ànd ak ñoom mën a rëcc mag ñi fi jaar tamit noonu lañ defoon ku mel ne maam Ceerno Ndaamal Daaru ku na xam ne na boroomub cër la mm-hmm. waaye moom tamit ndax dafa tëdd rek am ko déedéet bi Sëriñ Tuubaa dem ci géej gi mm-hmm. la ko dénkoon njaboot gi bi mu ko dénkee njaboot gi mu wane ca pas-pas bu rëy mm-hmm. moo waral bi mu demee ba ñëw na ko màqaama yi ak karaama yi jox naa la ko yow Cerno moo waral Baay Faal yi di way naan borom màqaama mooy borom kiraama nee leen jaaraama maam Cerno Faate tarkalla waaye moom tamit tëddut am ko de Cheikh Omar Faal wax naa ko léegi tamit tëddut am ko tarkalla am na moom tamit liggéey bu rëy la liggéey Cheikh Abdoulaye jërëjëf sëriñ Bassirou. Mhm. ñëw di boole. sëriñ Mountakha boole gii muy boole ci baayam la ko jële baayam daf daa boole. am na solo xaritoog Baay Ñas maam Assis maam Abdou Assis da baax di xaritoo di di boole. di xëcc waxta chimon. tarkal jërëjëf euh, sëñ daam neex na mais dina am luñ ci ñambaas ndax euh, ku la xam xam na ne ñaankat bu mag nga bëgg comme ni nga ko waxee saa su nekk fës ci média yi. Mhm. ci côté faj dañ ciy dugg ngaam loo xam ne di nga ci baaxee jaam yàlla yi ndax jamono ji léegi ñu bëri dañoo tawat ana ci lan ngay pëloo yëngatu ci paj ñu gën ci la cee xam nga ràññeeku ci. tawat ji moom fi mu ne li ci gën a bëri moo de yéen da ngeen a defee ne ku ne tawat rek dañoo defee ne ñi tëdd hôpital rek a tawat. ñu hmm. bëri fi ne loolu lañ defee ku ne tawat rek nga defee ne ki tëdd hôpital rek mooy tawat. lan la. dafa am ñoo xamante ni fi mu ne ñu ngi dox waaye wéruñ buñ seeti jur sëriñ si dañuy jékki-jékki rek wow ndax lan li ko waral moo di. Mhm. façon lekk yi dafa baaxul. moo war wér gi yaram mu jafe. fi mu ne nit mën na tëdd hôpital nii. Mhm. yow mi nga xam ne tëddoo sax njëkk ko faatu. mooy li ma expliqué léegi mooy cax wi ma cax léegi. ñu bari ñu ngi dox nii wéruñu. moo tax kon di teel di seeti ji borom xam-xam yi wax naa koy yoonu yoon. Mhm. waaye man damaa bañoon wàllu média. waaye nag ndigal la ak kilifa yoo xam ne nee na ma mënoo cee ñàkk bañ a wax jox ma ci ndigal forcé ma ci. looloo tax ne man sax nangu ma ci woon a wax. damaa naroon a fatu fi may fatu rek di def samay xalwatu ndax kilifa yu bëri xam nañ ma dañ may fatuloo mhm. kilifa yu bëree bëri fii ci ndakaaru xam nañ ma dañ may fatuloo sëriñ su ci bëree bëri buñ tiitee tamit man la ne woo te maa nga tuubaa toog léeg-léeg nag ma ñëw parcelle fii mhm. waaye daal mhm. euh, wàllu wàllu wàllu rab tamit bokk na li sonal nit ñi rab rab moom bari na sonal nit ñi bu naan rab nag ñu bëri dañ naan rab-rab waaye rab dafa amul rab amul rab wax bu yàgg la mag ñi ñooy wax rab Mm-hmm. jinne bu tuubul bu soloo nit ki yëngatu gi muy yëngatu lool ma waral naan diw daa ame rab waxtu yooyu muy waxtu mm-hmm. ak yëngu bi muy yëngu lool ma waral nit diw gi da daa amee ay rab daa yoree gaay ndax simmiku gi mu simmiku ndax li ko solo dafa xaw a xabtalu ba nga xam ne moo koy yëngal léegi nag yooyee nag mm-hmm. pour nit ki xam ko faaw mu xam faaw mu xam kii li ko dal moo tax ñu bëri naan rab rab rab wax bu yàgg la mag ñoo ñooy wax rab jinne bu tuubul mooy seytaane mooy def ngelaw ak yooyu yëpp ak di def tàkk-tàkk waxtu timis nag lay gën a xabtalu ak wàllu ay bëccëg ak yooyu kon waxtu yooyu tamit ñu di ko moytu yenn cole ni tamit nga di ko moytu mm-hmm. boo ko moytu jinne daf lay dugg jinne yu tuubali ñu ngi wër fi ne ci ci ci comme ni nit kiy circulé di dox ay mbiram noonu lay wër noonu la ñu wëree ñoom tamit di def seen i mm-hmm. nga xam ne yàq rek lañu liggéey jinne yu tuubali mm-hmm. ñoom sawara mooy seen kër ñoom yàq rek lañu liggéey léegi nag kam ko loolu am na si di moytu bu baax ak di teel a seeti boroom xam-xam yi di teel a seeti daal boroom xam-xam yi ñun nag yàlla may nañu yu bëree bëree bëri. comme waaye nag. tuuti loo ci mën a citer rek. waa xam nga bu ne yàlla may nañu. ñun mm-hmm. bi si jiitu mooy. Mm-hmm. wàllu listixaar dañuy listixaar nit ki ba xam fu ñu jaar mbiram ndax nit ki boo koy ñaanal ci arxuraan fekk beneen façon bi moo fi la mbiram di mën a jaare kon faaw nga mën a xam nga listixaar ko ba xam ban yoon nga koy jaar. lu tax ñu lay dàkkantare borom listixaar bu mag Mm. sëriñ si ci bëree bëri noonu buñ tiitee woo ñu ñu ci bëree bëri fii bu buñ tiitee woo sëñ daam sekk listixaarkat yow mi listixaarkat bu mag bi ñoom sax loolu la ñuy àgg sëriñ daam sekk listixaarkat bu mag bi noonu la demee yu ci bëree bëri dañ koy liggéey moom ah. ku ñu woo rek du am benn problème jërëjëf ku ñu woo rek du am benn mhm. problème yu bëree bëri dañ koy liggéey mhm. côté wàllum tukkee yooyu yëpp ku ko bëgg dañ koy listixaar xool ko ba xam yan sarax nga ciy def ak yooyu ku bëgg xalwatu tamit di tiit di ragal ak yooyu mhm. parce que day ñoo xam ne dañuy dox ci àddina mën nañoo yor xaalis waaye seen xel dalut ak yooyu dañuy tiit ak yooyu yooyu mënees na koo fatu buñ ko fatoo dafa la ñaan yoo xam ne sa xel day régler beneen bi ci topp sa fan tamit dana gudd yor nañ sekkare yoo xam ne pour ñi nga xam ne dañoo bëgg fan wu gudd mhm. ñi bëgg wàllu wërsëg tamit noonu mën nañ leen a fatu buñ leen fatulee ñaan suñu boroom génn wax kuy làmbatu nag man nga seeg waaja am na ci ñoo xam ne nag moom du ma tudd seeni tur mooy loolu seeni wax la ne yor day wax rek waaye rab moom maa ci wax lii rab amul jinne bu tuubul moo am mooy duggu nit ki bu ko duggee mu yëngatu yëngatu gi mu yëngatu fa la baatu rab jóge jërëjëf euh, sëñ daam am na solo xam naa comme ni ma koy waxee saa su nekk rek ku soxla numéro yi di ko am ci baar d'écran bi dañuy bàyyi ne la tey ci lan ngay tàggatoo tëje ci li may tàggatoo moo di mhm. ginnaaw ba ma réew mi ñu am jàmm ba pare ginnaaw ba ma ñaanale réew mi ñu am jàmm ba pare. Mhm. damay ñaanal Serigne Mountakha Bassir yan bi gën a woyof tooy. yan bi sax woyof na. Mouride tamit ñu gën a jàpp ci Touba ca kanam. ndax am na mission bu nu jël boo xamante xam nga man dañuy fatu ñun dañuy fatu buñ fato lu ci bëree bëri dañ koy gis. loolu ma war a may ëpp lu may nekk Touba ndax fatu yi may fatu Touba laa koy gën a mën a defee. Ndakaaru fii danaa fi fatu waaye lu ci ëpp Touba laay fatoo moo tax koo xam ne bëgg nga wàllum fatoog yooyu amul benn problème ku bëgg li saxaar tamit amul benn problème yéen façon ñaan yoo bëgg tamit boo ñu waxee buñ ko xoolee ba xam ko dinañ ko def incha allahu rabbi waaye daal li nga xam ne moom moom lañ ci tëjee mooy mm-hmm. nga xam ne moom lañ ci tëjee mooy bëgg naa réew mi ñu gën a jàppalente ñu gën a jàppalente gën a dimbalente tey waxante dëgg ndax ànd yu ci bëree bari li koy yàq moo di aw fen aw fen moom lu muy lu muy lu lu mu commencement rek Mm-hmm. lu mu commencé rek day yàq kon moo tax na ni waxtaan ci dëgg mm-hmm. loolu moom lu ma itteel la tey gën a muslu ci seytaane tey seete borom xam-xam yi jërëjëf ndax xam-xam moom lu am la mm-hmm. xam-xam moom ku koy werante rek xamoo lu ama am la jërëjëf voilà ndax ñun sunu loxo bu buñ tàngee sunu loxo buñ ko jëlee. lu luñ ko bëgg a def luñ bëgg a def mën nañ ko caa def. te ku ko weddi tamit mën nga ñoo seet si amul benn werant ku ko si ku ñu seet si mhm. da xam li ma la lépp dëggal jërë ngeen jëf ñi ngi leen di ñaanal bu baax yéen tamit ñi ngi rafetlu seen liggéey bu baax a baax ndax liggéey yu am solo ngeen di def di ñaanal tamit waa diaspora yi di ñaanal tamit réew mi jàmm rek di am ñi ngi ñaanal daal ñëpp di ñaan ñëpp di am jàmm ndax bu ñëpp amee jàmm rek réew mi neex mhm. ñun ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nan joxante loxo ñun ñëpp ñu baalantaaq kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci bopp bi ñu ñu leen di ñaanal ñu leen di ñaanal ñu gën a mën a teete réew mi ndax ñoo nekk ci kanam. kon faaw ñu leen di ñaanal réew mi gën a am jàmm ñoom bu ñu amee jàmm rek réew mi am jàmm. jërëjëf tàllal naa loxo ñëpp nag man. merci beaucoup ànd